li may wax nag dama koy wax ci turu képp koo xamante ni rek dafa dëkk jàmm gën plus particulièrement nag cité Sabé ndax terrain bii nga xam ne moo waral coow li terrain bi amuñu lu dul moom jàmm gën amul ay structure de loisir amu fi amuñu fu ñu defee mariage amuñu fu ñu defee réception amuñu fu ñu defee ay jàng xale yi amuñu fu ñu épanouir amuñu fu ñu footballé amuñu fu ñu defee entraînement amuñu fu ñu defee dara amuñ dans jàmm gën amuñu ludul terrain bii jàmm gën suuf moo fi desul terrain bii kese moom la ñu am te ginnaaw yàlla suñu doom yi nekk fi di football wala ñuy entraîner wala ñu nekk fi di def seen loisir moo ñu gënal ñuy dem géej moo ñu gënal ñuy topp tali bi di dawi lu ne mën na leen cee dal terrain bii lu ñu bëgg a def mën nañ ko fee def dina dina dina euh, joué lu bëri ci wàññi wàññi affaire banditisme comme nag moom dafa bëggoon terrain ba pharmacie bii dañ ko fee demandé woon ñu def ko fa booba daan tout jàmm gën amul pharmacie danga daan dem ba Pikine wala nga dem ba yi pour gis pharmacie comme nag dañ koo yaatal moom ñu jël pharmacie bi def ko fi mu arrangé ñëpp mu dem ba ci biir nag ñun bëgg ñoo xatal te ñun ñoo ko yaataloon bu demee ba ci biir nag bëgg ñoo xatal nag dañ koy wan ko nag fii loolu bi daal dañ ne xaw ma dañ ko bëgg a tabax ay kër xaw ma lan lañ ko bëgg a def mais daal ñun ak lu ñu fi mënti bëgg a def ñun bëgguñu fi dara terrain bii daal suñuy doom di ko utiliser école yi benn école amu fi terrain boo defee EPS jàmm gën yëpp ba mu daj école yëpp fii la ñuy defee EPS benn terrain amul jàmm gën amuñu maison des jeunes amuñu dara. lu fi lan la wax terrain bi ko moom. ah terrain bi dañu ni dañu ni euh, madame Kani Doumbouya moo ko moom madame Bathily moom lañ ñu wax ni moo ko moom moom moo lijjanti ne moom moo ko moom. dëkk bi yëpp foo tourné am na pharmacie am na hôpital hôpital yi ñu ngi fi bari ba dee. donc léegi pharmacie bi dafa war a jógee ndax déjà moom fi mu taxaw baaxul tey bu tuyoo bi tojee musiba am raison pour la laquelle moom pharmacie bi yéen après da ngeen ko gis pharmacie bi amul fondement dañ ko teg dafa mel ne lu ñu préfabriqué dañ ko tabax ko la ñëw teg ko kon nag léegi ah lan lay defati na fi jóg parce que sinon ñun ah suñu bakkee nii mu ngi ci xott léegi nag moo tax ñu bëgg a ah, président de la république Macky Sall vraiment mu jóg taxaw ci loolu parce que catastrophe yi doy na ah wax dëgg yàlla ñaanuñu yàlla ñu ko yàlla beneen catastrophe du fi am alors moo tax vraiment ñuy ñuy demander à que ñu jëlee ko fi surtout que sax moom waxuñu pharmacie bi mais mu ngi wax naan da day dafay tabaxaat leneen pour pour pour dëkk fi wara pour luye ko déjà moom fu mu moomul mu ni alors dafay dafay dafay def leneen na fi jóg.